mbokki internet yi seetaan NDC TV Sénégal ñi ngi leen di nuy di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen ci suñu chaîne ndax day jotee ay xibaar ak ay jàngat yu wér te wóor Cheikh Yérim Seck moom mi njiital euh, Yérim Post moom nag ni ki tey ji doon na amal benn janoo ak taskate xibaar yi euh, ginnaaw bi nga xam ne bindoon na fi livre nag livre ba juróon coow lool ndax wax joo xam ne waxoon na ko ca daal euh, cam soxal kii di Ousmane Sonko loolu nag juróon coow lool moom nag ni ki léegi nii doon na amal benn janoo taskati xibaar li mu ca xamle mooy euh, livre bi ñaari parti la beneen parti bi dina génn euh, balaa 2024 bu fekkente ni Macky Sall posewul candidat ngir bokk 2000 élection 2024 yi waaye livre boobu bi mu génnee waa gendarmerie dañ ko woo moom Cheikh Yérim Seck pour wattu li nga xamante ni mooy kaaraangeem ndax li ko waral ñoom daal danoo jote information loolu moo waral ñoom ñu ñëw ngir wattu kaaraange kii Cheikh Yérim Seck waaye moom li leen xamal mooy man daal sàkkuma kenn ngir mu ñëw wattu ma man dénk naa yàlla dëgg ci laay dox te dëgg rek euh, doon dénk naa sama yàlla kon daal euh, sàkkuma kenn muy ñëw nag ngir wattu sama kaaraange waaye ba tey muy xam le livre bi mu génnee njarte gi benn livre mësul am euh, njarte gu toll noonu te li nga xam ne ni ñu ngi koy euh, romanaat naan euh, xaalis lañ doon wut am na ko ceeg yooyu moom xam leen ne daal livre bi xaalis biñ ci am lépp dañ koy jël dimbalee ko ñi nga xamante nii mooy néew gi doo rëy moom Cheikh Yérim Seck loolu la xamle waaye nee na ba tey mu nga xam ne ni daal coowal livre bi ak bës bi mu am tax ñuy wax ni koo convoqué moom mii di Cheikh Yérim Seck yéen a ngi doon dégg fan ñu naan Cheikh Yérim Seck convoqué ko moom xam le na ni loolee euh, dara du ca dëgg moom mi kenn convoqué wu ko dafa da moom dafa moom dafa am ñum porté plainte ñuy am lante ñu am lante maanaam euh, dem lante ak dikk lante daal euh, muy coow loolu nga xam ni dox na digganteem ak waa far loolu ci la doon wax waaye moom mii di Cheikh Yérim Seck daal moom xam le na ni kenn convoqué wu ko ba tey muy xam ne ni daal saaga saagakat yi moom mën nañu continuer di saaga rek waaye moom moom dafay def li nga xamante ni mooy liggéeyam Cheikh Yérim Seck doon na gontoo benn janoo ak taskati xibaar yi nekk sànq fële Sénégal set